واجعل بنائي بناء علم وعمل بسنة وحلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه mbokk yi topp seen chaîne di seen chaîne bii di GMT TV ñu ngi leen di nuyuwaat di leen siyaare fas yéene àndaat ak yéen ci bind yi nga xam ne moom lañ tàmbali woon ak yéen ñu fas yéene ñëw ak yéen suñu ñetteelu bind euh, bind bi jàll nag tàmbali woon nañ téere bi ba xaw cee jël ay bayit kon fa foofu lañ fas yéene euh, suuf rek ngir àggale incha allah kon ñu ngi taxawoon ci fii sëñ bi waxee ne euh, di ñaan suñu borom subhanahu wa mu def téere bi mooy téere boo xam ne day kawe nekk téere bu barkeel bu am njariñ boo xam ne képp ku bëgg yàlla bëgg yonent bi dana ci mën a jariñu njariñul tey ak ak ëllëg moo tax moo xoon ne wa asalullah alkarima bin nabi sallallahu alayhi bi salaamin mujibi an laa yazaala dha nizaam wa naafian wa xata bihi intafaa kullu man yuxib allah wa rasula xillan aw muxib mu teg ca ne wa kawnahu muxjila kulli rajazi fi baabihi ala badiin mujisi ba borom def téere bi mu gàcceel mboolem mm, téere boo xam ne dañ ko way wala bind ci fànn gi lépp téere boo xam ne téere bi tawxiid a daal mu ngi ñaan téere bi gàcceel ko féete ko kaw nekk téere bu yéeme yéeme ci ab taar naka noonu boo xam ne day day lottal mbooleem xeeti téere yi yi ñëw ñu ñëw ci fànn gi wa kaw na fa muxji la kulli rajasi fii baabihi ala badiin mujisi ba tey mu muy way di ñaan ne an yakuna nuura fi lmakaatibi mutiba nafsay qaariin wa kaatibi ba tey mi ngi ñaan sunu borom mu def téere bi muy leer mu nekk leer ci mboolem jàngukaay yi fil bi mboolem jàngukaay yi euh, mutiba nafsay qaariin wa kaatibi ba tey euh, nekk téere buy seral xolu ki nga xam ne moo koy jàng wala ki nga xam ne moo koy bind maanaa ki koy jàng ak ki koy bind yépp téere bi seral seen xol wa an yajurra lil jinaani kulla man laazamahu wa kawnahu xisnal aman ba tey mi ngi ñaan képp koo xam ne jàng na ko rek wala nga yër ko jëfi li ci nekk mu ñoddi la jëme la àjjana comme ni ko waxee woon ci ginnaaw képp koo xam ne taxu naag moom rek euh, mu ñoddi ko jëme ko jana waaye wa kawnahu xisnal aman mu nekk euh, kaaraangeel kóolute maanaam képp ko koo xam ne jàng na ko daal mu nekk sa kaaraange kaaraange gi nga xam ne moo lay musal ci lépp lu luy musiba wa an yakuna tarida shaytaani wa xisbihi an qibalil awtaani ba tey mi ngi ñaan sunu borom def bi muy dàq shaytaane ak mbooleem ab kuréelam mu dàq leen ñu sori dëkkuwaay ya yal na yàlla def téere bi muy nekk luy dàq shaytaane ak ab kuréelam walis dëkkuwaay jullit ñi wa an yakuna raata al muallimi wal mutaallimi la da taallumi ba tey mu ngi wéy di ñaan yàlla def téere bi muy noflaayul aji jàngale ji ki xam ne moo ko jàngale mu nekk noflaay ci moom maanaam noppal ko xam ne du waajowoo muy yër beneen téere bu ci yemee rek moom day da koy mën a jàngale jàngale mu leer te du aji woo muy xool beneen téere wal mutaallimi la taallumi naka noonu kiy jàng it mu nekk noflaay ci moom ba nga xam ne li bëgg a xam lépp mën na ko ci xam wa an yuqirra ayna kulli man nadar fii wa mudhiban lima allahu atar ba tey mu ngi ñaan sunu borom seral xolu képp koo xam ne xool na téere bi képp koo xam ne yër na ko daal yàlla na ci suñu borom euh, seral xolam hmm, yàlla na ko neex naka noonu yàlla na soril moom téere bi lépp lu yàlla tere ba mudhiban lima allahu andar lépp lu yàlla tere yàlla na ko dàq dem wa kawnahu mughriya man xawaahu bima bihi yaxda bima yaxwaahu naka noonu képp koo xam ne am na téere bi wala jàng na ko wala yër na ko mhm. na bi nekk lu koy xiirtal ci lépp loo xam ne bëgg na ko man daal lépp lu mu bëgg rek téere bi yàlla téere bi yàlla ba mu am ko wa kawnahu man xawaahu bi ma bihi yaxda bi ma yaxwaahu maanaam yàlla na ko bi xiir ca mu am lépp lu mu bëgg mhm. ci lépp loo xam ne da koy may lam mhm. faydal ganiyi l mughni fii nazmi maani suluki yugni kon léegi nag ñëw na ci wax turu téere bi kon maa ngi ko tuddee faydul ganiyil mughni fii nazmi maani kon loolu mooy tur tur yi nga ne moom la sëñ bi tuddee téere bi muy yu bari yu sotti ko yu bàyyi ko sunu borom mi nga xam ne al mooy al gani nekk al mughni al gani mooy mooy nga xam ne moo doylu ba du soxlal kenn dara soxla wowul kenn dara al mughni mooy nga xam ne képp ku am dara moo la ko jox maanaam maanaam képp ku am boo moom moo jox la womal kon yàlla mooy alxani mooy mu xam ne du soxlal kenn dara waaye al mughni mooy am dara moo la ko jox kon fii nas bi maani su la ko jox nii maanaam da ko téere da ko way way woo xam ne nag euh, yoon yaa ni suluki mhm. maanaam boo ci yemee rek du waajowoo ngay dem di suubu ci yoon yoon yoon yoon yëm ci yàlla xam suubu yu yoon yu metti yi daal xam ne boo ci boo ko jàng yem ci rek moom mën na laa defar teg la ci yoon du waajowoo ngay dem di suubu coono yu metti yi nga xam ne moo na ci suubu mhm. kon samaytuhu faydal ganiyil muhni fii nadmi maani suluki yoon yi yaa rabbana bil mustafa aqbal dan nidaam wajalahu lii baaba ayaadika al idam yow yàlla sunu borom ci barke bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi al na nga nangu wéyu yi yàlla ko nangu te nga defal ma ko muy buntub say xéewal yu màgg ya sa xéewal yu màgg ya wajalahu lii baaba ayaadika al idam yàlla na nga na nga ko def muy buntub xéewal sa xéewal yu màgg ya ñu ñeel ma man sëriñ bi washkur kitaabatiya bi washkur kitaabati bi xadari daati washkur kitaabati bi xadari daati yaa man lahu bil mustafa lazati yow yàlla yàlla na nga sant sama mbind mi sama téere bi yàlla na ko sant ci kem sa tolluwaayu jëmm sa màggaayu jëmm comme ni nga màggee ni nga tedd rek yàlla na nga ko sante noonu yow mi nga xam ne yaa man lahu bil Mustafa lazati yow mi nga xam ne sama bànneex sama bànneexu jaamu yàlla ak diyaare lépp yow yow yaa ko moom ci barke bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaa man li wajhika alkarimi nudima dhan nadmu lishkur kullahu azima mu ne yow yàlla mi nga xam ne ngir sa jëmm ju màgg ji rek moo tax ma woy téere bi eh, yàlla na nga ko sant yàlla nga sant léppam màggal léppam yow mi nga xam ne daal ngir sa jëm rek rek moo tax ma taarif téere bi maa ngi lay ñaan nga sant mboolem li ci nekk lépp màggal lépp lépp lu ci nekk min nii taxabalil xurufa wassuma yaa dal aradi walhawaayi wassama ba tey day wéy di ñaan rek comme ni nga ko xamee xam ni ñu ñaane ak fa muy jaar ba xam ne ay ñaanam day day am solo lool te rëy mhm. xam baax ni ñaane moo tax mu wax ne yow suñu boroom bi te yàlla nag yàlla na nga nangu sama xaraf yi ak sama tur yi muy lépp rek day dellu ci téere bi yow mi nga xam ne yaay borom suuf yi ak ak bi ak asamaan ndax yow xam ne yaa bind asamaan bind suuf bind li ci diggante bi yow moom laa ñaan nga nangul ma sama xaraf yi ak sama tur yi muy téere bi ak lu ci aju urjuusatan tuzri bahal yaquuti wa durri wal marjaani fiiha quuti mu ne nag eh, téere bi da dafa nekk aw rajas aw rajas boo xam ne boo xam ne day gàcceel daa taaru taaru ba day gàcceel taa taarub ak dur ak marjaan yooyu bu ñuy misaal ab taara ci yooyu dañu tudd mu ne nag téere bi dafa taaru taaru goo xam ne moo féete kaw yooyu al yaaquut li muy taaru ak addurru ak almarjaan yépp li ñuy taaru taaru téere bi moo leen gën a taaru kon urjuusatan tuzri bahal yaaquuti wa durri wal marjaani fiihaa quuti mu ne it fiihaa mooy sama sama dund xanaa sama mm, dund dund bi nga xam ne moom lay jëfandikoo daal kon mi ngi ngi ci te mi ci téere bii di rajasu bi mhm. bikran azufuha ila almadarisi kaashifatan sutura ilmin daarisi ba tey da koy nuróole ak eh, soxna maanaam soxna si nga xam ne daa toll ci dem kër ñu koy wax jànq nga xam ne day wane ne téere bi daal dafa taaru taaru ba boo koy nuróole da nga koy nuróoleeg soxna su tollu ci dem kër su ko defee nag ma maa ngi koy ceetale ca jànguwaay ya asufuha ilal madarisi maanaam daal gannaaw bam ba nga ko nuróole ak soxna si toll ci dem kër su waree dem kër nag mu ne fa ko wara a ceetale fa ko war a ganalee mooy ca ca jànguwaay ya mhm. kaashifatan sutura ilmin daarisi muy téere boo xam ne day wuññu maanaa xeeti xam-xam yi nga xam ne moo làqu woon maanaam day wuñu suturas xam-xam ya raafoon ya làqu woon te buñ delloo ci ay mbindam dañuy gis muy ñaan di wax yow yàlla yàlla nga def sama mbind mi mu wuññu mbooleem xeeti xam-xam yi nga xam ne moo làqu woon bokk na ca li wax ne wakshif bi xatti maxtafa min al ulum anta al xabir wal kabir wal alim loolu mi ngi ko wax ci Nuuru Daarayni ba tey mu teg ca ne gaaniyatan taabudu al arshi al azim muxjilatan fi baabiha kulla nadim ni mu ko nuróolee eh, ci eh, ab jànq ba tey noonu la ko nuróolee ci eh, maanaam soxna si nga xam ne dem na kër ba noppi maanaam al gaaniya mooy soxna si dem kër ba noppi al bikr na mooy ko xam ne dem gudd kër bu ci nekk rek daf ko koy nuróole ngir wane taaragum taaru moom téere bi moo tax mu xam ne gaaniyatan taabudu dal arshi al azim muxjilatan fi baabiha kulla nazim muy da ko nuroo lekk euh, soxna si nga xam ne dem na kër ba noppi nga xam ne day jaamu yàlla fu mu toll taabudu dal arshi al azim ba tey muxjilatan fi baabiha kulla nazim mooy day gàcceel mbooleem xeetu way woo xam ne ñëw na ci buntu bii di buntu pas-pas tasbiifu aada kulli di saada sabiyan biha yanaalu xarqal aada mu ne ba tey eh, nay nekk téere boo xam ne day taaru taaru goo xam ne day ñoddi xolub boroomu texe tasbii fu aada kulli di saada képp kuy képp ku nar texe ëllëg rek boo ko jàngee day ñoddi sa xol da koy attire mhm. bu defee nag noonu mu koy attiré ci lay amee moom aji jàng ji ci lay amee xotti baax yoo xam xarxul aada sabiyan biha aw bihi yanaalu xarxal aada jamilatan tarfulu fi duyuuri bi anfail ujuuri wal xuyuuri ba tey mu ne da koy nurólee ba tey soxna su rafet soo xam ne day daagu ca biir kër ya tarful fi duyuuri jamilatan tarful fi duyuuri ànd ak gën jaa seen jaay yool ya gën a am njariñ ak ak yiw ya ëpp njariñ bi an fail ujuri wal xuyuri maanaam daal daf koy nuroo léegi soxna su taaru soo xam ne day daagu ca biir kër ya ànd ak eh, pay ya gën a njariñ ak yiw ya ëpp njariñ yankixuha abdun saidun yartaqi ila aljamili waljamila walxabiia yattaqi uhm. yankiuha abdun saidun yartaqi ila aljamili walxabiha yattaqi mu danaa ba nga ko nuróleg soxna soosu nag nga xam ne su taaru la macha allah kon kan moo ko war a takk mooy ki ko mooy jaam bu jaam bu nar a texe maanaam ki nga xam ne moo koy ko mooy jaam bi nar a texe jaam bi nga xam ne day yéeg toujours rek jëm ci sunu borom subhanahu wa taala yàlla mi nga xam ne mooy aljamil yankihuha abdun saidun yartaqi ilal jamili hmm, ki nga xam ne moo koy denc kon mooy jaam bi nga xam ne day góor góorgóorlu ci lu baax di yéeg jëm ci suñu borom tey di wattandiku lépp lu bon wal xabi wal xabiix yattaqi mooy day wattandiku lépp lu bon léegi nag gannaaw wax na eh, téere bi ni mu ko nuróoleeg soxna su taaru wax it ki nga xam ne moo koy takk léegi nag kon lan mooy can gi mu ne wa mahruha wa mahruha duaa li xusna wa bi ziyaadatin xadiman asna wa mahruha duaa li bil xusna wa bi ziyaadatin xadiman asna kon can gi nga xam ne moo koy mooy tax nag mu dagan maanaam euh, maye gi mën a am mooy can gi mooy nga ñaanal ma yow mi ko jàng wala boog yow mi koy teg nga ñaanal ma kon Euh, alxusna wa ziyaada mooy li ñuy wax gis yàlla ëllëg yowmal qiyaam am ak àjjana mooy mooy àjjana ziyaada nag mooy gis jëmmi suñu borom ndax dañu wax ne comme ni ko alquran waxee lilladina ahsanu alxusna wa ziyaada maanaam ñi nga xam ne ñoo taxe ëllëg dem àjjana ba noppi gis yàlla boole ci te wax nañ ne gis yàlla moo gën a neex àjjana ja nga xam ne moom luñ nekk mu ne nag kon maanaam euh, canuk téere bi kon mooy ñaan goo xam ne danga ma koy jagleel te la ci ëpp solo mooy nga ñaanal ma àjjana ak gis sunu borom subhaanahu wa taala euh, xadiman asna may nekk ki gën a kawe ci ñiy liggéey li yonte bi sallallahu alayhi wa sallam loolu kon wax ne mooy can gi mooy ñu ñaanal ko maanaam wala boog xam ne moo koy jàng mu ñaanal ko alxusna wa ziyaada ak mu nekk alxadim al asna euh, loolu nag euh, ni nga ko waxee fii am na ci yeneen béréb yu nga ko wax wane ne suñu borom may na ko bokk na ci la mu wax ne wasaytana bi walidina xusna yaa man jaaltani xadiman asna wasaytana bi walidina xusna yaa man jaaltani xadiman asna kon foofu day wane ne kon suñu borom def na ko mu nekk liggéeykatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi gën a kawe te wax na ko ci ay béréb yu wute wute naka noonu wax na ne waaytu uluman naafiatin bi lafdikun wali qaada rabbi xayra zaydin an alxusna suñu borom ba matal na ko kon loolu mu ñaan muy alxusna wa ziyaada mu teg cee ne chakarahu eh, llahu shukura yaqi yaqil ayna wal ada wal makra kon yàlla na suñu borom sant téere bi yàlla mi nga xam ne mooy ashakur comme ni ñu ko waxee woon ci ginnaaw yàlla na ko sant cant goo xam ne day day dàq shaytaan al ayn ak lépp luy lor ak lépp luy pexe shakarahu llahu shakuru shukra yaqi yaqil ayna wal ada wal makra asaluhu asaluhu lyowma bi jaahil muntaqa an laa ufaarixa su sururan yuntaqa wala maa ngi ñaan yàlla tey jii ci barke yonente bi nga xam ne mooy al muntaqa ma bañ a taxale kook mbégte ba faw an laa ufaarixa sururan yuntaqa salla alayhi bi salaamin wa dakar kulli wa amri inda xisbihi zakara ci moom ñaanal ko xewal jàmm yal na yàlla doole xewal jàmm waaye yàlla na yàlla sant sama sama lépp naka noonu mu tudd sama mbir ca ab kuréelam ab kuréelam wa inda eh, mu tudd sama mbir ca ab kuréelam hmm. Euh, kon loolu daf koy ñaan mu jëm ci téere bi ak la ci aju mu te ci ne salal jamilu sarmadan ala jamil yuti xadimahu lmuna xaytu yamil mu ne yàlla na yàlla mi nga xam ne mooy aljamil yàlla na doole xewal ba faw ci yonente bi mi nga xam ne mooy aljamil ba tey salal jamilu sarmadan ala jamil yonti xadimahul muna xaytu yamil yàlla mi nga xam ne mooy aljamil yàlla na dool xeewal ca yonente ba tudd aljamil ba tey moom yonente mi nga xam ne mooy jox aji liggéey aji ji lépp lu mu bëgg fu mu mën a jublu hada awaanu linsiraafi lil maraam wallahu lii kaana bi leen siraam mu ne nag kon lii jàll yépp ay ñaan la woon ak tudd yàlla ak sant ko bàkk ko ak julli ci yonent bi sallallahu alayhi kon nag léegi jot na mooy jublu nag ci li ma tax jóg mooy téere bi ak li ci aju kon haada awaanu linsiraafi lil maraam mu kon jot na nag ma walbatiku nag jëm ci li ma tax a jóg wallahu lii kaana bihi siraam suñu borom xam ne nag mooy euh, borom lépp moom moo nekkal nekkal ngoo xam ne amut yemukaay ci barke bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day mel loolu mooy mm, maanaam xaddima bu njëkk bi sëñ bi def ko di ci tudd yàlla ak di ñaan téere bi ni mu war a ni bëgg mu mel ko ak la ci aju léegi nag day ñëwaat ci beneen muqaddima boo xam ne daf ci leeral eh, ñetti xaaji diine yi comme ni koy waxoon ci ginnaaw muy al iman wal islaam wal kon xam naa suñ bindu tey bii dañuy yemane fii rek bu ñëwaatee incha allah daal di tàmbali nag ci buntum ñaareel bi jëm ci euh, xaaji diine yi incha allahu taala kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen ñaan suñu borom defal nu tawfiq defal leen ko di ñaan suñu borom gën a yàggal sëñ Muntaxa mooy ko ak wér ba lim yéene liggéeyal sëñ bi lépp liggéeyal ko lislaam suñu borom mottali ko te ñu ànd ko moom incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah واجعل بنائي بناء علمي wa amalin bi sunnatin wa hilmi